mu ne baabu thalis lii mooy buntu ñetteel fi zakati si azaka ak tey azaka waaw mu ne hoye moom azaka ibaratun ibara la mooy expression an malin maxsuus yuxadu min malin maxsuus ida balaga qadran maxsuusan fi zamanin maxsuus bu nekk nag daa am looy firi mu ne ibaara la goo xamante ne an malin ci alal maxsuusin buñ ko jagleel dafa am alal ju mën a joxe azaka ne ko alal ju nekk lañu joxe azaka moo tax ma ne maalul maxsuus mu ne yu xas yi def na ko jël min maalin ci alal maxsuusin buñ ko jagleel ida balaga nem jot na qadran kem maxsuusan buñ ko jagleel dafa am kem goy am tamit azaka di la doog a war dafa am quantité booy am ci alal doog a mën a génne azaka waaw ci zamani nag mu nekk ci jamono maxsuusin buñ ko jagleen waaw alal at ba at ngay génne azaka mooy jamono mooy jamono maxsuus fekkee mbay nag saa yoo góobee rek mu ne yu sopp def na ko soppi fi jihaatin ci ay wàll maxsuusatin yuñ ko jagleel dafa am tamit ñoo ko war a jox nekkul ñu la neex rek nga koy jox mu ne tajibu dina war moom azaka al xuri si gor al muslimi ke gor al muslimi ke di jullit zakar moo xam góor la zakar moo xam góor kana la nekk aw unsan mbaa jigéen moo xam góor la maa jigéen la saxiran moo xam xale la aw kabiran maa mag aaqilan moo xam ku am xel la aw gayrahu wala amul xel moo xam dof la lu mu mën a doon ah soo charte yi su matee azaka war na ci yow dégg mu ne fa nisaabu dahabi nisaabu wurus ishuuna dinaaran mooy ishuuna dinaar nisaab nag mooy kem bi ngay am pour azaka war ci yow kenn bi nga xamante ne moom nga war a am pour azaka di doog a war ci yow loolu mooy nisaab wurus nag nisaaba mooy ishuna dinaar soo xasee ba am ishuna dinaar azaka jëm ko azaka war na la li yees ishuna dinaar nag soo ko amee azaka waru ci ishuna dinaar mooy ñaar fukki dinaar wa nisaabul waraqi nisaabu xaalis xaalisu kayit mi ataa dirhamin mooy ñaari téeméeri dërëm waaw kon soo amee li yees ñaari téeméer azaka waru ci kon ñaari téeméer ngay mooy li sàdd wal waajibu lu wa li war nag fii dalika ci loolu te mooy ci ishuna dinaari ak ci ñaari téeméer dërëm yi ginnaaw ba nga amee ba war ci génne azaka ñaat nga ci génne mu ne al wal waajibu li war fii dalika ci loolu rubuul ushi mooy ñeenteelu fukkeel bi ñeenteelu fukkeel waaw juróom juróom ngay génnee si ñaari téeméer yi si ñaari téeméer yi mooy rubuul ushri waaw ida balaga nem nem mat na xawlan at kaamilan bu mat waaw si charte nag mille francs yi am si yow at bu mat sëkk wakaana ta mu nekk milkan bi moomeel kaamilan bu mat sëkk day nekk mille francs bi yoo xamante ni yaa moom lépp waaw yaa kon fasun fi zakati naami li mooy buntu bi lay fariñ fàcceel azaka yi njur wax yee moom al iblu mooy gileem wal baqaru ak nag wal ganam ak gàtt gàtt nag suñ ko waxee mooy mooy bay xar ñeenti yi ñoom la ci ñoom ñoom dong dañuy génne azaka ci ci xayawaan yi gileem nag gàtt maalufan aw saa'ima maalufan moo xam moo xam gàtt bu ñu yafal la aw saa'ima ma bu ñu bu ñu wëttal la bu ñu yafal mooy boo xam ne nga ko takk sa kër ah di ko dundal saa'ima nag mooy bi nga xam da nga kaa bàyyi muy taxawal di fa di for lu mu lekk amilatan moo xam buy liggéey la aw muhmala mbaa bu ñu neenal amila mooy giléem ñi xam dañuy liggéey am na nag yoo xam ne dañuy liggéey di bay def lépp ah aw muhmala wala bu ñu neenal la boo xam ne dañ koy jaar rek liggéeyu deful daal bu mu si mën a doon soo amee nisaab bi azaka war na la ci wala tajibu nag du war moom azaka fii xayriha ci lu dul yi ma la tuddal mel xayli laa la moom naat góor la wal bi xaali ak berkeel ak ak berkeel wal xamidi ak mbaam wal raqiqi ak jàmm yi yëpp azaka waru ci lu dul yi ma la tuddal daal azaka waru ci wala fil mutawallid du jaageen lu juddoo min az-zabaay bàyyi ko ci këj beel wal ganami ak gàtt mooy seen doom yi rek wa shurutu wujubiha sàttuk waram nag sàtt yi nga xamante ne mooy tax azaka war la si yii ma la tuddal anta ko ne mooy mu nekk nisaaban di nisaab kaamilan bu mat mooy da ngay am nisaab bu mat sëkk ku nekk nag nisaabam moom dina la ko wax milkan nekk moomeel kaamilan bu mat sëkk te day fekk nga moom lépp xawlan mat at kaamilan bu mat sëkk waaw maa ma ji isaati ànd ak dikkuk jaraaf saa yi jaraaf mooy ki liggéey ci azaka mooy imam di yabal di délégué délégué muy dajale azaka yi koo koy jaraaf kooku su ñëwee nga jox ko azaka bi bi nga xamante ni mu war a génne su demee jox imam bu njëkk la amoon mais jamono ji moom bëriwul isa kaana nem jaraaf am na su amul nag nga xool li nga war a génne nga génnee ko xay xayma li nga war a génne yëpp nga génnee ko dal koy jox seen borom wala nga seet imam bu maanaam jox ko ko mu séddale la ko fekk xamoon ñu ngi ko war a jox amal ibul ndaal giléem nag mu lay wax nag ku nekk lan mooy nisaabam amal ibul ndaal giléem fa fi kulli xamsin xamsin war na ci bépp juróom giléem shaatun gàtt jadaatun bu foq waaye moom soo ko xamul soo xamul shaatun jadaa maa aw fan mooy gàtt bu am bu mat sanatan at waaw loolu mooy shaatun jadaa mooy gàtt bu am at bu mat sëkk wa daxal te mu dugg fi saamiyati si atu ñaareel mina da'ni ci xar in kaane nem nekk na fil baladi ci dëkk bi ab da nu xar wal maaz ak béy sawa undi way yemoo léegi bu fekkee dëkk bi xar ak béy ñoo fi yemoo kon boobaa soo neexee génne xar baa génne béy bu la si nekk ayo da nu wala xar ak la bu di gën a not wala sax gàtt xar moo fi gën a not mu ne amma ida kaa nda ndaal nem nekk na nag al maaz béy ak la bu di gën a not kon fa saatu gàtt fa shaatu benn gàtt min fu moo ciy war mooy war ci juróom giléem yooyu su amee juróom giléem daal nga génn benn gàtt bu am ma sëkk moo xam béy lay doon wala xar bu fekkee dëkk bi xaref gën a not nga génne xar bu fekkee béy fu gën a not génne béy bu fekkee ñoom ñaar ñoo fi ñoo fi yemoo nag nga génne xar ndax xar a gën dégg fa shaatu nga génne benn gàtt minu ci moom ilaati xen jëm ba koo nga am juróom-ñeent ba koo nga am juróom-ñeenti nag ba koo nga am juróom-ñeenti giléem benn gàtt doomu moo la war ba koo nga am juróom-ñeenti giléem benn gàtt moo la war mu ne fay daa bala xam ne mën na achan fukki giléem giléem nag su ne ba mat fukk nag fa fii haa war na si saataani ñaari gàtt ilaa arbaata ashar jëm ba koo nga am fukk ak ñeenti giléem dégg fay daa bala xam ne mën na ne mat na ñoom gileem bi xamsata achara fukk ak juróom fa fiha war na sa salaasa chiya ñetti gàtt ilaa tisaata achara jëm ba koo nga am fukk ak juróom ñeenti gileem ila balagat ne mat nañu ishrina ñaar fukk fa fiha war na si arbaa chiya ñeenti gàtt ilaa arbain wa ishrina jëm ba koo nga am ñaar fukk ak ñeenti gileem ila balagat ne mat nañu xamsan wa ishrina ñaar fukk ak juróom ilaa xamsin wa salaasin jëm ba koo nga am fanweer ak juróom fa fiha war na si nag bintuma xat giléem nag di doog a war génne giléem doog a war amee ñaar ko juróom ba koo ngi am fanweer ak juróom ah kon fa fi xaa war na waaw bintu ma xaat yi bintu ma xaat lii bintu ma xaat mu ne waxee moom ëllëg yi mooy giléem bi nga xamante ne daxala dugg na fi sanati saaniyati ci atu ñaareelam mooy giléem bu jigéen bu am bu am ñaari at koo koy bintu ma xaat fa in lam takun nem nekkul lahu di ko ñal fekkee amul bintu ma xaag ah am na fanweer ak juróom ah gileem te amul bintu ma xaag te mooy gileem bu jigéen bu am ñaari at kon ba li ko war mooy fabnu labun ibnu labun ibnu labun bu mu waxu moom maa daxala mooy gileem bu dugg ci sanati salisati atu ñetteelam waaw ibnu labun mooy gileem bu góor bu am bu am bu am bu am ñaari at ba dugg ci at ñetteelam koo ko indi labul fekkee amoo bi duma xam mooy génn mu ne fay daa balaxat nem am na ne mat nañ ñoom julee mi sittan wa saatina fanweer ak juróom benn ilaa xamsin wa arbaina jëm ba koroog nga muy am ñeent fukk ak juróomi giléem fa fiha wan na si bintu labun bintu labun bintu labun waxoon naa la mooy giléem bi am ah ba dugg si ak ñetteelam bu jigéen saam ibnu am bintu su waxee bintu mooy bu jigéen ibnu mooy bu góor bi fa ida balaxat nem am nem mat na ñoom giléem a sittan wa arbaina ñeent fukk juróom benn ilaa sittiina jëmb koog mi am juróom benn fukk nag fa fiyaa wan a xeqatun xeqa boo jëlee moom xeqa allati mooy giléem bi nga xamante ne mooy giléem jigéen bi nga xamante ne ndax la dugg na fi raajaati si atum ñeenteelam mooy bi am ñetti at ba dugg na si ñeenteelam fa ida balaxat nem mat nañu ixdaa wa sittiina juróom benn fukk benn ilaa xamsin wa sabiin jëm ba ñaar fukk juróom fa fiyaa wan a si jazaatun jazaa boo jëlee moom allati mooy giléemu jigéen boo xamante ne ndax la dugg na fi xaamisa si atum juróomeelam ida balaxat nemmat nañu sittan wa sabiina juróom-ñaar fukk juróom-benn ila tisiina jëm ba juróom-ñeent fukk fa fiyaa wan na si binta labuuni ñaar bint labuun ida balaxat nemmat nañu ixda wa tisiina juróom-ñeent fukk benn ila ishriina wa mi ak jëm ba ko mi am téeméer ak ñaar fukk fa fiyaa wan na si xeqataan ñaari xeqa ida zara nem ëpp na nag ala zalika si loolu taxayara daal di soppiku alwaajib la waroon téeméer ak ñaar fukk su xasee ba ëpp li waroon day day soppiku kon léegi nooy def mooy gën a yomb da ngay def fa fii kulli arbaina ñeent fukk yu nekk da ngay seet nga génne si benn bintu la bon fa fii kulli xamsiina juróom fukk juróom yu nekk nga génne si benn xeq mu yomb ba dee wa amal ba xaru daal nag nag moo gën a yomb ñëpp fa yemoom kulli talatin bépp fanweer minha si moom war na si tabiun njëkk jazaun bu foq fanweeri giléem yoo am ah benn njëkk nga si génne njëkk bu foq ngay génne kon soo amee ñaar fukki ñaar fukki ñaar fukki nag azaka waru si soo amee ñaar fukki juróom azaka waru si su dee su matee su amee ñaar fukki juróom-ñeent azaka waru si su amee fanweer nag azaka bi doog a war waaw nga génne benn njëkk bu foq. waxoo moom soo ko xamul jazaun mooy bu foq bu góor aw jazaatun yëkk bu jigéen wala bu góor bu foq waxoo moom soo ko xamul maa aw faa mooy yëkk bu am sanataire ñaari at waa fii arbaina war na si ñeent fukk yu nekk musinnatun musinna mooy bu at moom nag laatu xadu deful jël si musinna illa musaan rek jigéen musinna bu jigéen la ñu jël waaye yow soo ko xamul al muwaffiq mooy bi am salaata sinin ñetti at su ma fi sittiina topp war na si juróom-benn fukk yu nekk tabiaani ñaari yëkk su ma fi fi fi kulli salaatin topp war na si bépp fanweer tabiun benn yëkk fi kulli arbaina war na si bépp ñeent fukk musinnatun musinna fanweer waaw juróom-benn fukk yu nekk nga génne si ñaari yëkk fanweer yu nekk nga génne si benn yëkk ñeent fukk yu nekk nga génne si benn musinna ilaa ishriina mi ajjëm ba koo ngi am téeméer ñaar fukk soo amee téeméer ñaar fukk nag fa yu xayaru def na tànnaloo assaa yi jaraaf mooy bàjj fi axri talaat si musinnat si mu jël ñetti musinna aw arbaati at bi amba ñeenti yëkk mooy bàjj dégg soo soo demee ba nag ba am téeméer ñaar fukk jaraaf la ñuy tànnaloo mel ni mu jël ñetti musinna maa mu jël ñeenti tabia ñeenti at bia mooy ñetti yëkk amal ganamu daal gàtt mooy xar béy fa fi arbaina war na si ñeent fukki nekk min haasi moom saatun benn gàtt jizaun bu foq bu góor aw jizaatun mbaa bu foq bu jigéen ñoom ba indi si xar awil maadi ma béy waxu moom maa aw faa mooy bi am sanatan at wa fi wa fi mooy gàtt bi am benn at wa fi mi atin wa ixda wa ishrina war na nag si téeméer ak fukk ak ñaar fukk ak benn yu nekk saataani ñaari gàtt wa fi mi ateeni war na si ñaari téeméer yu nekk wa saatun ak gàtt salaasa chia amee ñaari téeméer gàtt soo amee soo amee téeméer ak ñaar fukk benn ñaari gàtt moo lay war ba koroog nga am ñaari téeméer ñaari téeméer nag si yokkoo donte benn si yokku sax ñetti gàtt doo lay war moo tax ma ne fii mi atay war na si ñaari téeméer wa saatin ak benn gàtt ñaari téeméer gàtt ak benn gàtt war na si salaasa chia gisi gàtt wa fi arbaa mi a war na si ñetti téeméer arbaa chia ñetti gàtt su ma fi kulli man si ne ba bëri nag ba ëpp doole ba loolu asaka jotee da ngay xool téeméer bu nekk nga génne ci benn gàtt moo tax mu ne suma fi kulli mi atin topp war na ci bépp téeméer chaasin benn gàtt te mbii di ak yeete la laatu xasu deful jël nag ci azaka booy deful joxe ci azaka karaimul amwaali way tedd ji alal alal alal yi gën a tedd kenn ko joxe azaka dañuy bañ dañuy bañ mu lool sooy génn azaka noo bëgg nga seet di la gën a digg doo moo joxe dangay joxe li gën bañoo joxe li yées kal akula ci ni ki lekkaa kon kaat boo xam ne dafa mën a lekk ba nga xamante ne day gaaw a day gaaw a ponkal ah ko bu ko joxe wal faxli ak kuy bu ko joxe wa daati labani ak borom soow gàtt boo xam ne dafa bëri soow lool ah xam ne sa njariñ la bu ko joxe wala shiralu haadu bul bul génne nag yées a yées ka saxla fi ni ki tax wat tey si ak mbot wala ajuz ak bu lot mënul dara wala awra ak ak ak ak gàtt bu patt yii kenn du leen génne azaka wax na ma dem ka fi zakatil xasi si azakay mbay woo moom soo ko xamul almuqtaatu mooy woom loo ndax mbay ñu koy woom loo almuttaxadu la di lu la di lu ñuy jàpp li la asi ngir dund xaaliban si lu mat mooy li nga xamante ne si la nit ñi di dundoo si lu ëpp comme ay gerte dugub ceeb ci la noonu fataji bi na war nag azakatu azaka fil xin fati si tepp xem wa shair ak tepp shair wal urdi ak cet shair mooy suuf nga xaw ma xaw ma sax nga xaw ma bati façon tepp la daal dugg ba ndax yow wa fil xataani ak xeetu watteed yi wala ka wambe ñoom nag juróom-ñaar lañu juróom-ñaar xeet lañu kala aada si ni ka aada wal basiir ak basiir yëpp ay façon ay xeetu watteed la wala ka wambe si wal fuuli wal ximmas ak fuul ximmas wa fi tami woon na ci tàndarma wa zabib ak raisin wa zeytun ak zeytun azaka woon na ci wala tajib azaka du war fil xasabi ci bant yi xasab mooy bantu njànd wal buquuli ak ñambi wal tiini ak tiini wal fawaakihi ak firi yi karumaan ni ki grenade loolu nag illa bi taxoon azaka waru si woon illa boobu dañ na te mooy bu njëkk amuñoon fu leen conservé fu leen denc moo taxoon ñu ne azaka waru si moom ak légumes yi mais loolu nag amatul ndax léegi am nga léegi jamono ji dama soppi ko waaw yi xewoon yëpp xew na kon fi mu toll nii jamono ji moom xikmatu tashri bi feeñ ci jamono ji bu ko am fi benn azaka war ah léegi dañuy indi denc ci commerce ci commerce te mën mën na koo denc mën na at du yàqu bu njëkk nag amuloon foo ko denc lekk rek baa mu yàqu wani saabul xaasi moo taxoon ñu ne azaka kenn si génn moo taxoon ñu wax fruits yi ak légumes yi kenn si génne azaka mais loolu nag dañ na dàqu na wani saabul xaasi ni saabu mbay nag ñaata ngay am pour azaka doog la war ci tepp yi ci mbay yi mu ne xam sa aw suq mooy juróomi la ba aw suq juróom bërigo juróom bërigo woowu moom alfuri yi mooy junni litre junni ripp la mu ne wa sittami aditin ak juróom benn téeméer litre bil Bagdadi ci waa Bagdad kulli litin bépp litre nag ñu ati dirhamin la téeméer dirham la wa samaniatu wa ishuna dirhaman ak ñaar fukk juróom ñetti dërëm bi di yi makki yi ci gëru mag woo moom xam su na wa xumusan woo moom xam su na mooy ñaar ko wa xumusan ak xumus yi xabatan ci pepp mina shair ci shair ala mutawasit bu diggu doom bi tab bu diggu doom bi mu ne mooy ci juróom fukk ak ju ak juróom bi waaye na maa xamal ne toxta boo def na def na considéré def na xalam al awsuqu awsuq baada wasi ma ginnaaw ba nga génnee li nga xamante ne fii xaa nekk na ci pepp ba minal xasaf yi waaw minal xasaf si ay bant war rusubaat ak i tooy tooy bant yi ci nekk yi nga xamante ba koy witti dafay nekkaale yëpp da nga koy génne ba pare ak tooy tooy yëpp soo ko liwee nag su ma see ndaba aw suq nag juróomi ndaba aw suq ak yooyu doo ko war mu ne wal muxraj la ñuy génnee nag ci juróom ndaba aw suq yooyu min zakatil asi ci azakay min zakatil xarfi ci azakay mbay al ushu mooy fukkeel ba fii maa ci li nga xamante ne suqiyee nan nan di def na ko min gayri mashaqatin si dul coona kama istamay ndi ko ndox asamaan sa mbay mi nga xamante ne defoo si benn coona da ngaa ji rek yàlla wàccee ndoxam mu daal di mu daal di ñor xomb ah mu daal di ñore kooku fukkeel ba nga génne mooy juróom dafa aw sox yi soo ko xaajee fukki xaaj benn xaaj bi nga génne fukkeel ba waaw wani sul ushi ak janwaayu fukkeel fii maa si li nga xamante ne suq yi naan def na ko bi alatin si jumtukaay kat dawaalib ni ki baag wala roosekaay mooy dawaalib am moom leen utiliser pour roose bu fekkee yooyu nga utiliser roose si sa sëli ah sëli ba bam li comme ñi nga xamante ne bay noor ñooñu suñ bu seen bu seen mbay ñoree suñuy génnee genn wàllu ushi bi genn wàllu fukkeel bi lañu génne moom lañu cëg
ñu dégg loolu moom am na lu ñu jeex lu ñu jàppal ñu jeex.
waaw azaka dem na ba fii yëpp azaka fii la
aw suuf léegi marché wala aw marché.
ba